mooy bisub lan bisub ñaanal Serigne Saliou Mbacke ci alxuraan ñaanal ko ci xaside yi ñaan yàlla ci kursi suñ borom yokk leeram taas ñu ci barkeem waaye nag ñu wan ko ne ko sa dongo yi nga yaroon a ngi nii ñu nga doon wan suñu borom a ngi nii tey jii bokk na ci liñ lay faye wala liñ lay jéem a dugal ci li ñu defal mooy delluwaat la njukkal ñaanal la ci sa weeru bopp yi nga xam ne da nga koo fonk lool mooy weeru rajab rajab yi nag altine la tere woon ñu jàpp bis bi dimanche dimanche tey jii mooy juróom-ñaari fan dëppook ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier ñu daje fii ci Colobane kër Sëñ Tuubaa gi ci Colobane barab bii barab la bu miin kilifa yi barab bii lañ ko mas si defee naka jekk ànd koog suñu jawrin sëriñ Abdou Ndiaye mi nga xam ne mooy jiital mboolem maj moo ndóori ni muy doogay tar bi yëpp ñu ngi koy ñaanal suñu borom doole wéram ma kattanam ak mboolem ñu koy jàppale ci mboolem jawrin yi jawrin yu bari teew nañ fi sëriñ Cheikh Dieng ñoom séntu soñ soñ bu Saliou Ndoye di séntu mboolem jëriñ ñi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi te ànd ak sëriñ Abdou liggéey bi <coughs> liggéey bi daal ñi ngi ñaan sëriñ Touba di ñaan sëriñ Saliou Mbacké liñ ko ciy ñaanal yàlla na ko gis fam nekk jot ko léegi mu nekk ci barkeb sëriñ Touba waaye moom lam ñuy ñaanal moo ñu yàgg fi te wér te yàgg koo defal lu mel nii <coughs> ñi ngi ànd ci caméraman bi sëriñ Mansour Gueye bu Touba TV waaye itam ñi nga ñi ngi ànd su suñuy rak sëriñ Cheikh Mbacke Kane mi ngi ci biir liggéey bi ku ci mel ni sëñ Cheikh Diagne mi ngi ci biir liggéey bi ku ci mel ni sëñ Moustapha Fall mi ngi ci biir liggéey bi ku ci mel ni sëñ mi ngi ci biir liggéey bi ak ñi nga xam ne ñooy presse bi nga xamante ni yàlla dogal na ñoo ànd liggéey bi ñu koy jàll en ñu leen di jaajëfal seenu liggéey bu rafet di ñaan suñu borom gën ñoo jàppale bis bi ñu yàgg koo def ndax ñetti bis yi rek la ñu am mooy bisub sëriñ Saliou bi ñuy def ci weer rajab ak mois de août buñ ci àggee yóbbu saabu yi ci daara yi ak bis bi nga xamne mom lañu wété ñuy décembre wala novembre mooy xelkom bi mooy mbàccum xelkom ñet bis yi dal bayi nañ ko xel fonk nañ ko lol waye li ci ko nak moy bis bi ñepp bok moy màggalu Touba kër sëñ saliw ak gamu gi ñu defee kër sëñ saliw ta donga yi di bu am solo kon mbokk yi tey jii lépp loo rot na fi dañ leen ko war ngeen kuri ko kuréel yaangi ni nii bu wacc sa morom yek den ko gëna jallé inshallah taala waxtan wi ci karam tuuti ku koy def mooy Serigne Lamine Touré ah, moom soxna gay Touré mi nga xam ne moo bokk ak ki nga xam ne mooy Serigne Saliou Touré wenn waajur wu jigéen ak soxna Mati Jaxate kon kooku moo ko nar def muy doomi Cheikh Ahmad Dame Touré waxtaan wu am solo lay doon Serigne Cheikh Gueye itam laata muy tàmbali buñ ci àggee dana jël lu toll fukki yoo xam ne dana ci gën a leeral Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké kon mbokk yi ñu ngi a yéene ànd ak lépp loo xam ne rot na fi ñu ànd koog mbokk yi incha allahu taala liggéey bi tàmbali na mbooloo mi tubaarkàlla takku na gis ngeen leen lii fi na mën naa ne baas bi fees na dell waaye lépp rek ngir woote Serigne Saliou ñu ko sopp ndax donga yi dañ ko ànd ak soppe yi ak xarit yi ak andi jàmm yi kon daal ñu ngi sant mboolem jëwriñ yi ci réew mi ak bitim réew ak ñii ci yónnee seenu ñax ñi nga xamante ni dañoo woote rek 143 21 21 dugal ci seenu ñax ñoom itam ñu ngi leen sant di leen gërëm muy jaar ci àlla ministre Serigne Fallou Ndiaye kon yi yàlla ñu defal tawfeex ba ngeen mën koo seetaan ni ngeen ko bëgg a seetaanee ci lool ñi nga xam ne sori nan ñoo leen fi nekkal ñi fi nekk itam ñi ngi ñaan mboolem ñi nga xam ne dañoo jiitu suñ boroom jéggal leen ci barke bisu tey ñaanal Sénégal Sénégal am jàmm am toofeex doog nga yëpp am ndam am yi xéewal ak mboolem sopp yi ci kanam tuuti incha allah mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah jëf mbokk yi ñu fii nag ci waañ wi nga xamante ni mooy waañu sëriñ bi waañu xelkom ndax buñ gisee jëmm yi xar kanam yi miin nañ leen lool ci daaree xelkom miin nañ leen ci tool yi ci liggéey yoo xam ne yu metti lay doon waaye ñu jànkonte ak moom bokk ci ña njëkk waaye bokk ci ña fay mujj noonu lañ ko defe nag ci barab bi ci ndakaaru ñu ngi fii nag ci bàkku kër sëñ Mbàkke Soxna Lo mu sëñ Mbàkke Mohamed ñëpp xam ne Gaynde faat moom ak sëñ Mbàkke gis ni ni meloon ak sëñ Saliou Mbàkke ndax loolu liggante bu yaatu la mu fonkoon ko lool kon bu ndikkee ci ab di fi def lu mel nii dañuy santaat bu baax a baax a baax sëriñ Xaadim Géey gëm ànd ko ñii nga xamante ni naka jekk ñooy ànd muy borom mbubb yi niroo yi tubarkàlla ñu am ñett nag muy déggoo manko yëgoo kenn ku nekk jàppe sa morom ne koo bokkal ndeeg noonu la ñuy doxee waxtu wu ne lépp luñ song rek jàpp nañ dana ko daan ndax seen booloo moo leen ko may a rahma bañ ko waxee sëñ Mamour Diar dana diret ajamaatu mbooloo ñu ne tekk mu ne rahma luñ jéem man ko waxut na yërmale dana luñ jéem man ko Euh, tey ñu fekk la ci waañ wi ak sa mbooloo mu baax mi ñu leen ñaanal wér ak gudd fan ak sudaak toofeex def dara ci poos yi waxtu wane saa su ne nan ngeen dundee tey liggéey bi ndax xawoon nañ ci tiit ndax daa jege xel koom ji lool waaye poroxaan suñu diggante poroxaan matatul juróomi fan euh, waaye teewul bis bi ña amoon ci ak tiit waaye dafa mel ni tey la gën a tawféexe ndax gis naa sax ngeen def fi loo xamante ni wax dëgg yàlla euh, daawu ma ko gis xeeti saaf yi nga xam ne moom tubaarkàlla moom daal tubaarkàlla macha allah bisimilah seexul xadim salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi siyaare mbokki jullit di, di siyaare mbokki taalibe yi di ñaanal sëriñ Saliou suñu borom fayal ñu ko gi fay di ñaanal sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke moom mii nga xam ne moo toog jataayub bi ak mboolem rakkam yi ak mboolem donge yeeg soppe yi di ñaan ci réew mi jàmm tay ñaan jataay bi nga xam ne moom lañ amee te daan ko def at mu jot ba tey jii ñu defaat ko yàlla nañu bi dëgëral te kàttanal ñu ba at mu jot ñu koy mën ba ni ko bi bëgg nyukai koy defee te làq ci ngërëmal bi sing affaire di siyaare nag mbooleem ñii nga xam ne ñu nag ñoom ñoo ànd jataay bi ban ci jugee daaw ba tey ñu nekk di ko waajal ba bis bi ñëwaat tey jii nii ñu àndee ko nii di ñaan niñ ci duggee ci bismillahi rahmaani rahim yi ko sëriñ tubaa àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin ban mbokki taalibe yi ak mbégteem jëwrin ak mbégteem sëriñ bi ci barkeb sëriñ Saliou bari ñaata la ko wax ki suñu dañuy sant yàlla bu baax tey santaat sëriñ ndax nit moom bu fekkee da doon xale bu ndaw ñu toqi la ci lu baax teg la ci yoon wu baax Serigne ni mu daan yare nga xam ne day jël nit defar ko mu doon nit ku complet def ci yow alxuraan def ci yow xam-xam def ci yow xasida def ci yow yar boo xam ne tey jii foo génn bu la nit gisee dina la naw dina la bëgg te lii nga xam ne moom nga tey jii nga ñëw ci waañ wi di ko wax ñu koy def sëriñ bi mi ngi ñu ko jàngale ci biir daara ji da nga daan bokk ci néeg boo xam ne yow yaay doon jëwriñ ji am topp jëwriñ ñu dénk la lu tolloog fukki xale ak nangam wala ñaar fukki xale tay ji ni da ngay ayé dem ci magasin bi ñu natal la nga ñew lay euh, sankal ci daat koy moñ def ko cere togg ci bo xamné ay nangi minute ngay togal, kon day mel ne li ñuy dund tay ji ni ñong leen ko défaralé ca daara ja loolu motax tay ji bu buñ ñëwaatee fii du leen jaaxal duñ ci am benn jafe-jafe comme non nga ko laaj nak moy tay ji ni li ñu programmé won kérok nga xamné suñu borom dafa dogal lepp luñuy def rek dañ koy waxtaanee nosko tekko tekku ci ay programme ñoo ngi commandé wax ne dinañ def lu tolloog fanweeri mbana ak juróom muy trente cinq mbana tey jii nii moom lañ programmé ngir jaami yàlla yi nga xam ne ñoo ngi ca tànt ba di jàng alxuraan ak xasida ku xam Serigne Saliou ci bu masaan di jàngalu alxuraan ak xasida day tour deret def ay bernde jox ko ña nga xam ne ngir ni mu fonke woon alxuraan pas-pas boobu nag moom li ñuy jéem a roy ci moom ba tey jii nii donte mënuñu ko sax ñu koy def taal nan lu tolloog fanweeri mbana ak juróom si fanweeri mën ak juróom waaye nag euh, toggin bi ay ay façon ngeen ko def. waaw toggin bi dañ ko def benn plat. doon koo def ceebu ndawal boo xam ne. comme ni nga ko waxee. ndax dañoo wut lu tollu ñetti yëkk. yëkk yi boo ko doon xayma benn bu ci nekk def nañ ci sept cent cinquante mille. nga xam ne kon loolu duy caaxaan ndax luy luy waral loolu mooy. dan naan bis du tuut boroom lay nuróol. te ñun lu ñu suñ boroom dénk defal ñu ko barki Serigne Saliou noppi nan ngir def ko ci toolu toolub Serigne Saliou ndax amun mënun lépp moom la loolu moo waral tey jii nii gars yi fan yi yëpp ñoo ngi fi dem ci marché bi nduggi ñu fajaru dem foora jënd ay nag ñii dem ci wuti ay bagage yooyu yëpp ñu dajaloo comme ni nga ko waxee sànq booloo doona doo wenn say comme ni ko ab laa daan waxee naan wenn say yombut a damm loolu moo waral nag tey biñ taalee fanweeri mbana dañoo def ceebu ndawal boo xam ne lépp loo xam ne ceeb bu baax dañ ko ciy def boo ko joxee ay doomi aadama ñu mën koo jëfandikoo yëg ko seen bopp. Mhm. def nañ ko ci. macha allah waaw jërëjëf. ñu xarit ñu ngi santaat tey gërëmaat. waaw moom daal xam naa ne fii wàccee kàddu gi. mooy di gën a soññewaat ñu gën a góorluwaat te xam ne sëriñ bi rek lan am amaatun keneen ku dul moom gis nga si affaire mbooloo mi ngay gis man li ma ci gën a neex ma ne tey jii li alxuraan naan innama amruhu iza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun bu ma yoroon kun ñoom ay milliardaire la ñuy doon ndax liy wax ji mooy boo xoolee suñ maamun mi nga xam ne moo doon jëwriñu waañ wi nga xool suñ Souleymane Sarr mi nga xam ne waa ahlu raxas nga xam ne pëstef bi ñuy am ak pas-pas bi ñuy am bu nekkee ci liggéey bi yëg-yëg bi ñuy am day day day day jéggi day wa nga xam ne tey ji dootoo talati dara dootoo ti dara sa xemmeemteef ak sa bëgg-bëgg mooy ñëpp bég te ku bégal jaami yàlla yi suñ borom bégal la moo taxit dañuy ñaan rek yàlla nañu suñ tubaa gën a dëgëral gën ñoo kàttan gën ñoo defal ak wér defal ñu xéewal yoo xam ne nii ñu koy taxawoo mm-hmm. ñuy dem ba suñuy njaboot di ñu ko taxawoo suñuy sët di ko taxawoo noonu te ñu yàgg fi lool te ànd ko wér di sant soxna yi ñoom tamit ndeysaan doon pësteef yoo borom pësteef yoo xam ne ay ay ay xale yu ndaw nga xam ne tey jii nii dañ naan la fii leen juddoo ci école yi leen jànge waaye melokaan wi ñuy yor da lay yéem yéem goo xam ne kiimaan la moo tax daal suñu affaire dañuy sant di ñaan yàlla nañ tasanteeg ndimbalu sëriñ bi ak tawfeexam bismillah auzu billahi mina sheytaani rajim asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd soxna Seynabou Faye nekk jëwriñu waañu xel Xelkom ànd kook sama soxna yu baax yi ñu ànd koog dongo tarbiyu yi nga xam ne liggéey bi daanaka saa su lañ koy ànd ak ñoom muy bésu xasida bi saabu yi ak euh, xel gi ñuy gi ñuy dem saa saa su ne ba ren ñu yóbbu ñu Maodo liggéey bi moom mën nañ ne saa ne at mu jot danañ fexe lépp lu ñu defoon daaw ñu yokk ñu yokk ko ren danañ fexe jox leen ñam yi mucc ayib ñu ngi santaat bu baax suñu waajur yi jigéen yi nga xam ne ñoom lañu àndal liggéey bi nga xam ne ñoo ñu fi jiitu ñu ñëw ñu teete ñu wan ñu liggéey bi teg ñu ci yoon ñuy ànd ak ñoom it ci waañ bi bu baax a baax ñu ñu ciy jàppale di ñu tegaat ci yoon ñuy santaat soxna yëpp nag muy soxna dongo yi di soxnay waañ bi surtout soxnay waañ bi nga xam ne ñoom guddeeg bëccëg ñu ngi fi suba ak ngoon da leen di jaral ñuy fanaan di def lépp ngir liggéey bi dox képp ñuy soññaat ñëpp nag mu tàmbalee ci soxna dongo yi ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a sës ak suñu yaay yi ak suñuy suñuy morom ñi nga xam ne ñun ñun ak ñoom ñoo nekkandoo ci waañ bi di leen wax ne liggéey sëriñ bi moom képp lañ fi am te moom képp moo fi nekk sëriñ Saliou kat yaakaar naa ne mënuñu koo fay waaye kenn ku ci nekk ci ñun am na lum la jëfal te jëfal gim la jëfal tax na war naa tax lépp loo yëg ne ñu nga ñu nga ca rek nga war caa ànd ak ñoom def ci sa kem kàttan kon nag soññe gi moom du wees ñu ànd àndandoo ko xàccandoo dóorandoo lépp lu ñu bëgg rek war nañ koo mën a am ci liggéey bi. ñu sant Serigne Saliou bu baax a baax di jërëjëfal ñëpp nag. sëñ Mansour noonu lañ ñëwee tam gis ngeen sunu waajur yi nga xam ne dañoo ànd ak yi di leen teete ci liggéey bi lu am solo la. Bàjjan kon ñu jox la kaddu gi yow itam nga soññi ndax say morom itam buñ la gisee buñ sañoon ànd ak yow ci liggéey bi. sëriñ Saliou ñuy santaat ñëpp képp ku fi teew di ñaan yàlla ñu fekkee déwén yu baree bari te lu fi waaye def ren déwén yàlla na nga mën lu ko ëpp ñuy sant rek ndax bokk ci mbooloo mi sant la ñuy sant bu baax sëñ Saliou ndax moo ñu may lii nu am tey du suñu suñu mérite de dimbala sëñ saaliw rek la ñuy santaat bu baax nag di ñaan yàlla daal may ñu ay xéewal barkeel ñu barkeel njaboot gi suturaal ñu yombal ñu xéewlu yi ak xéewal yi may ñu wér ak kàttan gun ko liggéeyale te mu nanguñu suñu liggéey ci barke Cheikh saaliw بدودي وأقلامي لمن زاز اليمن كما زهزا زيدا نوى الجال والخمام بدودي وأقلامي لمن زاز اليمن كما زهزا شيدا من النار والسيطان نهانا زملا auzu billah bismillah inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah bokki jullit ñi bokki talibe yi ginnaaw bi ñu sante yàlla buur bi subhanahu wa taala jëlli ci yonentem bu tedd bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam gërëm sunu yaakaar Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul di am mbégte bu baax ci jotaay bii nga xam ne moom lañ doon amal tey fii ci Colobane ci kër Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul gi di jotaay boo xam ne mboolem njabootuk Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké xaadimu rasul gi nga xam ne kenn la woon ci njabootuk seexul xadim gi amoon taxawaay bu rëy ci lislaam waaye amoon ko ci mboolem yoonu murit gépp amaloon ko mboolem islaam ya njabootuk boppam gi nga xam ne ñoom la yaraloon boppam ci mboolem daara yi nga xam ne ñoo njëkk koom ñu tuddi leen daara yi saw yi ba xel xelkoom ñëw feelu daara yooya ngir seede dëggal liggéeyub sëriñ bi ci ko doon sëriñ Tuubaa doon liggéeyloo ñii nga xam ne ñoom ngeen jàkkaarlool ñu feggoo ak ñoom ci sunu wetuk càmmoñ ka bok ci njabootuk sëriñ Malik Bassine de non jëwrin ju mak ci ke serigne Saliou mbake yar ñi ëpp ci njabot gi nga xamne ñoo doon amal jotaay bi fekkante gi ni ko sëriñ bi da waxe ci mandargam garab feggoog serigne mohammed Diagne ba di ku mi non ci keppaaruk serigne Saliou mbake bok ci njabootuk Cheikh Moussa Ka werakaanu Xaadimu Rasul ki yor kaddu gi di Mouhamadul Mamoun Bousso mu seexinaa Cheikh Saliou mbake khadim Rasul feggoog serigne mohammed Sambo jàngkatu khasida bu Serigne Saliou Mbacké Khadim Rasoul bokkoon ci ñi nekkoon daaray njàppandal yal na yàlla dolli jàppandal ci moom ci barkeb xasida yi ak mbóot mi waaye feggoog Serigne Fadilou Ndiaye Mbelañ bokk ci waa tubaa Mbelañ yi waaye di kenn ci njabootuk seexi Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Moustapha di hafisul Quran di jàngalekat di yarkat bokk ci ñi jaar ci daara yu bari ci Serigne bi mën naa ne noonu ma ko waxee ci moom noonu lañ koy mën a résumé ci mboolem sëñ Mouhamadou si mañ tàmbalee di rafetlu bu baax taxawaayu Touba TV bi nga xam ne rajo la wala télévision boo xamante ni itam yëpp mooy liggéeyal Serigne Touba si Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñu feggoo ceeg Serigne Afia Thioban moom Serigne Saliou Mbacké Khadimal Moustapha Serigne Afia Thioban borom jàmm borom jub borom jubal borom juboo waaye Serigne Afia Thioban mi nga xam ne kenn la ci produire Serigne Saliou Mbacké Khadim Rasoul yi nga xam ne doy na sëkk misaal ci ne. sëriñ Saliou kenn la ci ab liggéeyam tey ji nag ñu amaloon jotaay bi fii ci Colobane commission bii nga xam ne moo jiite lépp lu aju ci luy saytu liggéeyub kër gi wala ittey kër gi wala liggéeyub Xelkom ka ca bopp ba di Cheikh Mouhamadul Moustapha Guèye mi ñëpp miin ci keppaaru sëriñ Saliou Mbacke Khadim Rasoul miin ko ci bépp daara ci ndigalu sëriñ Saliou ci ak nekkam waaye ci kuutaayu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Sayful Islam yal na yàlla def ci moom ak yàgg ak wér ak mucc ak gën a am ndam ak mboolem rakkam yëpp Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Mouhamadul Bachir Cheikh Mouhamadul Murtada Cheikh Abdoul Khadir ba ci seen mag soxna ma Astawaalo ak mboolem rakk yëpp waaye rawatina mboolem magi taalibe kër gi yëpp ci kilifteefuk magi mag ñi nga xam ne ñoo jiite mag ñëpp muy sëriñ Abibu Diop mi nga xam ne moo jiite lépp lu aju ci kuréelu mag ñi nga xam ne ñoo yar njabootu kër gépp lëkkaloog jëwrin ji nga xam ne sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke moo ko tànn ci ak matam akuk matalem ak xam akuk ràññeem ci wuutu gi mu wuutu Serigne Saliou Mbacké ci liggéey bi mu doon liggéeyal Cheikhul Khadim joxañ ko mboolem njabootu Serigne Saliou Mbacké te mat sëkk liñ ko tànne mu doon ca tànneef muy Serigne Abdou Ndiaye Mouride Sadikh di jëwrin ci mboolem ndongay tarbiya Serigne Saliou Mbacké ci biir réew ak ci bitim réew Cheikh Dieng waaye lëkkaloog Serigne Sohaibou Ridwane Ndoye ci diwaanu Touba ak Serigne Pape Diop Thiès waaye Serigne Khadim Seck waaye lëkkaloog sëriñ Cheikh Diagne ci Njaareem ak sëriñ Mor Fall ci Dakar waaye lëkkaloog ñi nga xam ne ñooy sëriñ Xaadim sekk di waa Nooru Daarayni bu Touba koom ak mboolem sëriñ Mouhamadou Diop mi nga xam ne moo nekk Darou Salaam Maodo Mouride di daaray cosaan ji nga xam ne mooy ñaan nga nangu Xelkom ci sëriñ tubaa Cheikh Salihou Mbacké jëm rafaatale sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké doomam ji. moo waral ñu feggoo ci ak Serigne Mouhamadou Sy mi nga xam ne moo jiite délégation Serigne Moustapha Guèye cor mi jiital mi coordination lépp lu aju ci kër Serigne Saliou waaye mu boole ñoog Serigne Fadilou Ndiaye lañ ak sëriñ Mouhamadou Diagne ba mii ñii ñooy délégation bi nga xam ne ñoo bàyyi ko Touba teewal fi Cheikh Mouhamadoul Moustapha Guèye kon Serigne Afia loolu mooy kaddu yi nga xam ne moom lañ ci doon tënk di rafet lu bu baax taxawaayu Touba TV. waaye di rafetlu sa taxawaay ci Touba TV di rafetlu sa taxawaay ci ëtti kër Serigne Touba Xaadimal Moustapha yëpp di la ñaanal ak yàgg ak wér ak mucc ak gën a am ndam cobaan Afia Thioban borom jàmm ji. Yeah. am loo xam ne moom la ci daara yi taxawe donga yi te mooy daara ju ne dañ laa wax na nga indi ñeent fukki junni soppe yi itam dañ leen a wax seen kem seenub taxawaay rek ci seen pas-pas ngeen doxe noonee ngeen mënee waaye teewul nag ñu doxe ci doxin wu ràññiku rawatina nag jigéen ñi ci njiital soxna Mariama Ndour loolu lépp nag nga xam ne ñu ngi koy laaj muy li ñu laaj daara ju nekk muy ñeent fukki junni ak soppe yi tamit liñ ci tàllal seen loxo lépp ñu ngi ko delloo ci li jëm ci jàng alxuraan ak xasida ak waxtaane sëriñ bi ak berne muy lii ñu doon def sànq suñ ñëwee nag ci fàttaliku sëriñ bi euh, imaamu xasaal yi day wax ne ci wax ne xinda sikri saalihin tansilul rahma nit ñu baax ñi buñ leen di fàttaliku yërmaande yi suñu boroom day wàcc bokk na ci lool yi mooy من فوائد سكر السالحين محبتهم صلاح القلب ونصول الرحمة موي بوكنا تي نجارنيو فاتليكو كو ملني كي دي سيرين سالحين لا ني تي جيلي تي مغنان ما نتي غوبي موي دوليكو اك توفال سين ديغنتك موم اك صلاح القلب موي سونو خول منا ييوين با تاتان بولم يو باخي اك يرمني يالا بي واتي سو ديمي تي تيري بو نيي واخ مختصر صفات الصفات واخ maa raaytu lil qalbi anfahu min sikri saalihin moom de nee na gisul lu ëppal xol njariñ ci fàttaliku nit ñu baax ñi kon fàttalikoo gi dañuy waxit ci suñu borom nii mu ci waxee muy xadiisul xudsi te mooy yaa malaaykati yi ay na kuntum suñu borom ci moo laaj yéen samay malaaka ana fu ngeen ne wa huwa axlam te moom mi leen koy laaj moo leen ko gën a xam malaaka yi wax ko ne ko yaa rabbana anta axlam yow de yaa gën a xam fiñ ne ne ko kunna xinda xibaadika yusabbixuunaka wa yuqaddisuunaka wa yuazimuunaka wa yumajjiduunaka wa yasaluunaka wa yastaxfiruunaka wa yastaxizuunaka ne ko ñun de ñi ngi sa jaam ci saw jaam ñoo xam ne dañoo toog fi bërëb rek di la sàbbaal di la sellal di la taqdiis di la màggal di la teddal di la yëkkati waaye nag ñangu lay ñaan di la ñaanit njëggal di ñaanit nga musal leen ci mboolem li àdduna baaxoo suñ borom ne leen wamal la si talaboo ana lan la ñuy sàkku wa mi mastahaazu ak lan la ñuy muslu malaayka yi ne ko yaa rabbana anta ahlam yow de yaay ki gën a xam suñ borom ne leen yaa malaayikati usxidu inni qad axtaytuhum maa talaboo wa amintuhum mimma xaafu wa adxalahumul jannata bi rahmati yéen samay malayka nangeen seere ne mankat dana leen jox lañuy ñuy te danaa leen jox ak kóolute ñu mu bér leen ne mucc nañ ci li ñuy ragal te danaa leen tàbbal aljana ci sama yërmande suñ boromit waxaat ci xadiisul xudsi yi ne inna lillahi saraya min al te joolu wa ko xalaa majaalisi sikri yon san salam fay saar aytum riyaadul janna fartaxoo saxaaba yi laaj ko ne ko qaalu wa maa riyaadul janna yaa rasulullah mu ne leen majaalisu sikri suñ borom ci boppam dafa am ay kuréel ci malaayka yi yoo xam ne dara du seenub liggéey lu dul wër ci pàkk suuf yi wër ci pàkk suuf yi foo xam ne ña ngi koy tudd yàlla ak di ko fàttali fàttalikoo ñoo ñii nag saabu bu ba fekk jataay bu mel nii dañuy daldi bëof foofa foofa nag bërëb la boo xam ne dañuy tudde alxasbu xasbu nag mooy bërëb boo xam ne bu naat lay doon boo xam ne li ngay soxla ci jëfandiku ci lekk lépp dafay ne waaye li ngay soxla lépp ci ak naan dafay ne yéen saa salaam ne nag yéen way gëm ñi bu ngeen rombatee barab yooyu ngal la na ngeen fa soog ndax yooyee ñooy barab bërëbu si kari fàttaliku yàlla yi loolu yi lenn la ci li li li sabab bis bii suñ ñëwee ci ñaareel bi muy saabu yi te mooy liggéey bii nga xam ne moo war a rosi yi ñuy tàllal ak téere yi te loolu yi ñu koy def képp koo xam ne dugal nga ci sa saw ñaq na la biir ne de dañ nga ko defal ci liggéeyu sëriñ saalihu bii te mooy lii sëriñ Seex yore saabu yi nag noo ngi ko tàmbalee ci atum 2007 ci mbooloom dongo moo xam ne mbooloo mu néew a néew la ak i soppe biñ ko defaree ba noppi ñëw leeral ko sëñ bi sëriñ bi ne seen xalal ak sama ak sama alal day jenn su leen sooboon mënoon ngeen ko yóbbu ba noppi door a del ci leeral ma ku dul yéen nag damay taamu bala fay dem mu jaar fi man ba noppi wax na it ne su ma sañoon lépp lu fay dem yéen a ma ko fay yóbbul ñu xam ne nag li indi mbooloo mi daa doon lu war lu lu war a leer ci xolu wala ci xelu képp koo xam ne yaa ngi teew mooy nit ñi Serigne Saliou rek moo leen fi bëggam googi mu daa ànd ak nit ñi ne ànd na maag jaam ñëpp ànd na maag ñëpp duma fekk lu yàlla eh, eh, yaatal ma di ko xatal ànd na maag ñëpp loolee la nit ñi rek àndeek ñoom ñu xam ne liggéey bi ñu nag yéen ñoo ci yam képp tey bu ñu xoolee saabu yi ñu tàmbalee 2007 tàmbalee ko ci juróom ñeent fukki goros daaw bi ñu koy yóbbu toll na ci ñeenti junniy goros ak juróom benni téeméer te lool yi taxul ba tey lañu bëgg dëgg-dëgg ci dongo yi ñu mën ko muy lu leen di fóotal wala ñu muy doo xam ne ca la ñuy sangu lool yi nag ki ko yore nga xam ne moo yor seenug dund yor seenug koddaay yor seenug santé muy seenug paju yor seen lépp kookee ku ne xam ne ne la mu yore lu diis a diis la ndax ñeenti junniy goros ak juróom benni téeméer foo ko def te mënu yóbbu ren ba déwén war ngaa xam ne ca topp yëpp kenn waxatu ko kon nag ñoo ngi tàllal di leen wax ne liggéeyal sëriñ Saliou liggéey la boo xam ne liggéey bu sax abadan la du fi jug mukk kenn ku nekk sa wàll nga ci ñu leen di xamal ne liggéey bii nag bi mu ñu koy jox biñ fay jaar ci yoon bu njëkk ba di 2007 mooy at mi nga xam ne ci lañ mujjee gisee ak moom waaye wax ja nag dëppoo ak xikma ju mat sëkk te mooy su leen sooboon yóbbu ko ba noppi doog a jaar fi man dafay mel ni kon loolu junj wane ne at mii di ñëw duma fekk rek la moo tax nu koy defee nii dañoo bëgg daara ju ne dañu lay laaj ci saabu yii nga xam ne moom la donga yi war di sangoo wala ñu di koy war di fóotoo li jëm ci seen wàllub set loolu yi dañ ciy laaj daara ju nekk 300000 muy juróom benn fukki junni loolu nag teewul nii ñu waxee woon rek lañ ko booleel ba tey ndax ñu ngi ko ànd ak mboolem soppe yi nga xam ne ñu ak ñoom ñoo bokk pas-pas seenu bëgg ak sunu bëgg genn bëgg rek la muy nan la ñuy def ba jot mbégum sëriñ bi ak ngërëmam may wax ne it ne sëriñ bi seetuk donga yi dakaa ñoroon lool ba foo ko takk rek dangay ngay jàpp ne ëpp na ko ndax it moom ci njëlbeen amoon na ak tumuranke ci biir ay xalaatam nan lay def ba dong yi di mën di sol lu set waaye waxtu wu ñu waree sangu ñu sangu ca anam yam gën a euh, mate loolu nag yeggoon na ci mu laajoon ci ku ñuy wax sëriñ Abo Guèye di suñ jëwriñ ñu koy siyaar baax a baax wax ne ko man de damaa bëggoon nga laajal ma ci tund bi nan lañuy ñuy def ñu ko mën a doxale ba nga xam ne kenn ku nekk da nga jël sa wàll ci liggéeyal Serigne Touba yi bu donga yi tilimatee nga mën a jël ci seeni yére yóbbu ko fóotu ko ba mu set nga indiwaat ko kenn ku nekk tànnaat ca lam ci am loolu yi nag lenn la ci biiru dundam ba gannaaw boo xamee nag lii gis nañ ko am mbooloo di ko def ak ñenn ñu ñenn ci bennati bennati nit ñi di ko def lañ xam ne kat lii suñu warteef la ba ñu fi jógee ñu ne ñu daal di tàllal suñuy loxo fas yéene jël liggéey boobu jëmale ko kanam mu doon liggéey boo xam ne du dog mukk moo tax dama waxoon ne eh, lii nga xam ne daka ñor moo tax bi mu fi jógee ma doon wax ne yaa wayxa si tey ma jooy jantu boroomam bii fi xëy déeyaale jeeg soppeem ba tey wéetal na luy tooy ak lu wow géejug ngëneel tàggoo na dem duusam ya lañ sukkiy dëtam te daan ci fóot ak laabitam sa ndox mu neex mi nu gaw su ko defee ñetteelu tomb bi nga xam ne moo waral lii mooy ñetteelu tom bi ñu amoon naka jekk di ko def mooy bisub siyaar bisub siyaar boobee nag dañ ko daa def Serigne Saalihu moo ñu ko tànnaloon mboole yi yeewi ko ñu mën di dajaloowaat ci benn bis seenu ñaq di delluwaat ci biir tool yi loolu yi nag biñ koy def ba Serigne Seex ñëw daf ne dama leen kaa bëgg a dugalal foo xam ne gën a gën a tawféexe ci yéen te gën a sakkan daal ne loolee ngeen daan def di ko jël muy àddiyee ji dama dama leen koy dugalal ci biir Xelkom ji ngeen boole ka ak liggéey bi su ko defee nit ki waxtu woo xamee ne ñaqam ak alalam lépp a ngi dugg dara desetul ndax loolu rek lañ lañ laajoon saxaaba yi mooy anfusahum wa amwaalahum lool yi nag moo tax Serigne Seex bi mu ñu ko joxee daf ñoo wax ne góor gu ñu gu ñu namm utalub cër lañ lay lañ lay ñaaxe lañu ñu ñaaxe woon daf ne na ngeen xam ne xorom sax warlu lu ma leen ko gannaaw nag donte barkeem rek ci la lii lépp di sottee sëriñ saalihu nag bi nga xamee ne sëriñ Thierno na mi ngi ci tool yi di ko liggéey ba noppi am na lu mu ko waxoon daf ne ko Mbàkke ñi ngi lay ñaan taraayu jamono ak ma ko xatam bu mu tax mukk nga bàyyi fi liggéey bi dem sëriñ bi dana dënn ba mu yàgg mu ne ko ba ma xàmmee ba léegi lu ma mës a liggéey jox naa ko ki fi toogal sëriñ Touba ba ñu xëy ne ma yaay sëriñ Touba daal ne kuñ ne nag yaay Serigne Touba faaw nga ngay liggéeyloo nit ñi ñu xam ne la yóbbu woon Serigne Modou Moustapha mu ànd ak mag ña di liggéey raay ba ba xëy ñoom ñëpp ku ca nekkoon amu ndam fu ñu la tudd nga sigi say sët sigi loolu moo indi Serigne Fallou ci carrière ba loolu it moo indi Serigne Touba Serigne Saliou ci xel Xelkom ji loolu moo ci doonoon liñ ci doon leeral bëgg ñëpp xam ko xam ne liggéey la boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk. Dub dongo dub soppe ñun ñepp ñoo ci yam aw taxawin bo xamné kenn ku nekk war nga xam ni nga ci wara taxawé ba liggéey bobé jàng ñoo ngi jéggulu ñepp wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim amman yahdikum fi zulumat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 الحمد لله وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأسنى خديمه وأمته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله ما نوي بوك ييب دي زيارة دي دوكيل دي دوكيل سما بوبيت تي وقتو يو بركيل يي ني تولو دي نوي كليفه ييب ديكو تامبالي سيرين عبد ميغا خامني mooy jëwriñ liggéey bii ñu ne di ko ñaan mu jotti nu suñuy cant ak suñuy ngërëm ci sëriñ bi muy sëriñ Cheikh Ahmed di nuyu suñ bàyyub daara bi sëñ Mouhamadou si ak suñ magi daara yi ak eh, suñ mbokk mi nga xam ne moom la sëñ Afe tudd léegi muy sëriñ Lamine nga xam ni lii ñu bëgg ni tey moom lañ tànn ngir rafet njortu gun am ci moom ci ngir ci yu bari waaye yàlla na ko sama borom defal tawfiq ba lim bëgg mu def ko ni mu ko bëggee insha allahu taala li ci des nag moom daanaka du du du lu am solo xanaa daj rek sëñ du dana bëgg ñu tudd tuuti rek te jox sëñ Lamine mi nga xam ni dëgg-dëgg eh, mbir mi ci loxoom la ne xanaa kon mu waxoon ni sañ nañoo wax ni kon daje nañ di fonkle sëñ saaliwu ak di ko wormaale lu wormaal ak di ko santle ci lu ko yàlla defal ci sëñ bu njëkk bi mooy di ko wormaale lu mu ak di ko ca firee it nam ca firee boppam ndax dafa firi boppam ci sëñ Touba wane ni moom ab taalibe la fa noonu la firee boppam ci sëñ Tuubaa ñu it ñu bëgg koo bàyyi ci prix moomu bu ko defee nam fiire boppam mooy nee na daal ab taalibeem la waaye taalibe gi mu wax ni moom la wax na ko waaye jëf na ko wax gi mooy saa yu nuyoo wax asalaamualeykum ba noppi da nga dégg mu ni maa ngi jagleel ab nuyoo sama bokki taalibey murit yi kon loolu feeñal na boppam am maanaam ci Sëñ Tuubaa waaye it muritam googu firee na ko ci jëf firee na ko ci jëf ci di daj mbooleem coono yi nga xam ne moom la muritub Sëñ tubaa di daj ci Sëñ Tuubaa ba noppi nag wëlbatiku dajaat ci mburitub sëñ Touba lu benn murit dajut ca mbokk muritam kon moom fiire na boppam ci sëñ Touba ak muritam ci noonu nga xam ni ku mu doon ci nun dana la wóor ni muy sonne ci am murit la si Musaa Ka di wax ni ab rëbb day xiif ak mar sax mbaa muy nangoo guddee mbaa du fetal luñ taamu ku ci jàkkaarloo woon ak way juróom mu jóge ca rëbb ma yanu ba diis aku ñaqam dana ko wóor ni ni baayam sonn ci njabootam ni sëñ bi sonn ci moom moo ko ëpp te nag moo gënu dund ndax dundub kéwél ya ak kooba ya dundub yaram la moom nag coonaam dund ba dundub ruux la te yàlla ruux la soxla ci fa hada murabbi ruuxi وهو له صدف جانغ نانكو تالي بوك نتي خيوات يي گنا ماگ تي كو يالا ديفال موي يرمنا جيم كو ديفال تي جامي بوبام يي تا يالا لوكو ديفال تي اي جامي لول يرم لين گرموت لول يرمنا جوجو نك سيغ مود مامون نيو مي في جوغي بو يگوت دكو فيري نو خاني سيغ بي جيگينا دايو تي دويوار انت الذي انسيتنا اباءنا قل اي وربي لم افه بالباطل dani ko yow ku ne fatte na bayam te suñ mom moom ña kat tuuti la ko suñ kon mom kañ la ko tambale yërëm te bi wax bayit bi amna juroom ñaar fukki mu ne ko yow tax nga ku ne fatte na bayam mu mel da am ku ne ko ah ndax li nga wax xam nga ko mu jëfandikoo ci alquran lu lu néew ci alquran ndax alquran jep ñett yoon rek la sun borom wax yontim ni ko giñal wa haqqun hu quli wa rabbi وربي إنه لحق لا تاتينا الساعة قل بلي وربي لتاتينكم زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلي وربي لتبعثن نيت يوري لا سون بوروم ني غينيل واي سي مودو مام نيام بيمي غي فوفو لا جيل غير واني ني ليماي واخ دا كو دوندو خام كون لولو ني ديكو سي سانت لا يالا سي خيبلم غوغو موكو ماي مو ييرمي كو اي جامام bi ci des ci ay xéewalam mooy nangoo sonn gum nangoon sonn ci ànd ak nit ñi ñun ñëpp dégg nañ mu ni su may dox di leen geesu loolu lu mu tollal ci alxuraan mooy wax waxfid janaxaka li man ittabaaka min al muminin yow yónent bi tolluwoo kenn waaye nag li ma bëgg mooy ngëmuñu fexe ba indil ma mbooloo mi wàcceel saw làmmiñ ba mu tolloog noppi ñi nga àndal ngir ñu mëna aksi kon bu seigne sayu ne bu ma rew dox di len gesu loola kep lay firi waye na amna na fulla ju doon fa in asawka fa quli fa quli nii bari'un mimma ta'malun waye na ku nekkul ci l'islam nopi na ca loolu mo andi lu l'islam lislaam ëm ma ca defar ëm ma ca yàq waye nak ñu ne ñu am responsabilité ci waxam joju ndax dañu sumay dox di len gesu waye kini gesu momen luy moom fam ku ñu wuur ni ñëwu mom soxlawun ju geesu la kon ku ñuy geesu rek mooy kuy wone ni yaa ngi ñëw loolu moo andi fastaqim kama umirta wa man taaba maak yàlla dañuy yónente bi yow dong boo jubee doyut na ñëpp jub wa banaatika du ci topp wa nisaa'il mu'minin waxal sa waa kër ak soxnay jullit ñi dool ni soxna sëriñ bi rek lañ wax ni ko nurul jullit soxna ku dul sëriñ bi daa wan a jullit kon bu dóoru ni kenn bu doy bu juwee baax na waxoon naa ko ni boo demee ci université danga nga fay fekk maanaam faculté des faculté des sciences médecine xaw ma médical waaye faculté boo xam ne duñ jël étudiants yëpp yóbbu leen fa ñenn na fay dem buñ mënee loola tasaaroo ci réew mi ay gynécologue ay docteur ay nangam ña ca des dem jàngi leneen loola moom faj moom nangu na loola na ñuy dem jàngi fa ñee dem defi leneen waaye njub nanguwut lool ñëpp njub moom doonul ni bu waa dëkk sàngam jubee baax na déedéet fastaqim kamaa umirta wa man ak kon sëñ Afe xanaa euh, xanaa li ma ci def de mooy ñu sant ko santuk sëñ Saaliwu li muy defal société salaaw tabarkàlla defal na société al mujtama euh, euh, al sénégal yi kaaraange fi non yéen ñi dongaam yi kenn ko ci xamni dana fanaan ci ab koñ nit fanaanoo yat ngir mom wala paaka wala fetal amut kon fexena ba indi al amn ci biir société bi te nag sëñ bi bu jàmm amut julli sax li muy màgg màgg yàlla dani bu ngeen dee julli te jàmm amut nu way jullee baax na ida darabtum fi l ardi fa laysa جناح ان تقصر من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا نو جولي باخنا جوبلو صووك وخك لار لال خيت بو تقدرتك در يقتو جولي لوكو اندي الخوف كون جامونو بي جامو ام موي لي غينا ايتيل ناخ بو امو دار من تخوات لولو نك موم لاي سوني لمبين دي جانغال تايجي واي كين امول لوي واخ سيرين لمبين موي واخ buma gëné gënee moy seigne Modou si sama bayu bu ñu fatte légui lo xamné ñu jaar ci rek moy al jubba'i ak dongam ba ah julit bu ëllëgé mu ni day am daraja xale bi day mucc yéfer bi sawara al muminu fi darajat as-sabi fi najat al kafir fi darakat mu ni ko lutax mu tont tont bu kenn mënta dégg waaye sëñ Saliou fexel na ba kuy gone liggéeyal yàlla ba dugg ci wa man yaati muminan qad amila salihat fa ulaika lahum darajatul ula bu fekkee noonu la ma ma ma ngi ma ngi maa ngi kii lépp daal dara wur ma koon wax sëñ Lamine laa war a xaar sëñ Lamine sëñ Afe nee na sëñ al muhadir al akbar moom la wax ñun ñëpp ñu déggandoo ko kon maa ngi tuub li ma jot a wax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 bis bi nga xam ne ci la ñuy waajal yóbbu saabu yi ci daara yi sëriñ Saliou Mbacké yi mu jëm ci dongo yi loolee nag day daal doon doon le 19 ci weeru août naka jekk weeru août bi ci lañ koy yóbbu waaye ren jii ci 2023 bi day tombeek incha allahu taala le 19 août loolu nag dongo yëpp nga koy waajal ànd ko soppa yi ak wëlëre ak jàmm yi rawatina ñu nekk fi bitim réew di jaarale nag seen addiye ci numéro bi muy 77 143 21 21 di numéro boo xam ne bu ñu miin la kon mbokk yi ñu ngi leen di fàttaliwaat liggéey boobu yi euh, tubaarkàlla ñu ngi koy waajal ndax donga yi bis bi ñu am ñëpp xam nañ ko mooy xel Xelkom ak bis bi ñaanal sëriñ Tuubaa yu Saliou Mbacké ak itam yóbbu saabu yi su ko defee la ci dolliku nag mooy màggal gi ak gàmmu gi euh, tubaarkàlla waaye nag saabu yi la ñu ñëpp ngi di ko wàcc nañ ko bàyyi xel bu baax 77 143 21 21 le 19 août yóbbu saabu yi ci donge tarbiya Serigne Saliou Mbacké yi